kon sëñ Ablaye dégg nga fi mu daaneele ci sancub Touba ñaan fa lam fa ñaan tey lépp dikk waaye mu am nattu nag ba mun munta dëkk ca dëkk ba ndax suñu borom euh, li nga gën a bëgg rek euh, la lay nattoo ba gi ku ne xam na ni Serigne Touba ci ay nattu rek la nekk waaye loolu nag moo ko yéege màqaam moo xam ne kenn mosu fa àgg gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Ablaye Diop bi jërëjëf euh, Cheikh Anta Samb mm. jërëjëf imam ci kàddu yu rafet yi te wér yàlla na yàlla dafa ubbi lu am solo. lu am solo. Euh, yàlla dafay tànnal sang yi muy tànn yépp da leen di tànnal. Mm-hmm. Euh, njaalbeen gu rafet. muy ay wéejur yoo xam ni. Mm-hmm. ñoo leen di tàggat ci wuti yàlla. Mm-hmm. tàggat leen ci teel a taxaw guddi. tàggat leen ci mbaax. kon bu ñu bëggee waxtaane sëñ bi faaw nu jaar ci wéjur yi tedd yooyu ko yàlla tànnal. wax na ko ci sunu maam Mor Anta Sali. radiyallahu anhu mhm. wax na la ni Sëriñ Tuubaa wax na ni moom xutb la mhm. ayaa man ba al ahkaam yi mhm. yaa xaw sa dillii lii ayaa xutb yaa naamuusu yaa xarmatal jiili sëñ bi wax na ni <laughs> yow yaay réservoir u xam yi jamono yëpp moom xaali mor ànd sa booba université yor boo xam ni ñëpp fa lañ doon dolli ci xam yow yaay ki nga xam ni dangaa mel ni naamuus li daan Jibril daan yor di ko dikkale yanante yi lolo nek ci yow ñu lay déglu nak lu neub yow yaay ki nga xamne yaay fekk ko nara sanku nga tek ko ci yoon ba mu gindi ko xam yalla borom yow yaay sa xut bu jamono moy ko xamne yow la yalla denk lepp mbiri jamm kon lolu seigne Touba ko wax ci wéyjuram lolu ci seigne Touba rek lañ koy deggal ndax mom rek ka mëna doon wajuru seigne Touba bi seigne bi di feeñ mom mm-hmm. rek ko mëna doon su ko tan leppam <laughs> wéyjuram bu jigen mm-hmm. juñju na la ko légui mm-hmm. way wo mu doon wax ca biir dafa wax ni walam tusin amadan walam tubin abadan walam tuxin ahadan man aabaha maana waaw kookoy wéejuru Cheikh Ahmadou Bamba Maam Jaara walam tusin amadan mësta ñaawal dara walam tubin abadan mësta génn ci fi ko yàlla dëyaloon ak boroom këram di fa liggéeyal yàlla mësta takk bagaasum génn foofu walam tuhin ahadan mësta doyadil kenn mu ne kon man abaha maanaa képp ku ko wutal ay fen nga kooku mooy maam Mariyaama Buso di wéy juróom bu jigéen Cheikhul Xadim mu wax la léegi ni dafa gane àdduna ci rabbaaniya mhm. xat wulida rabbaaniya mhm. Cheikh Mahamadul Bachir a ko wax dafa gane àdduna ci matam googu nga xam ni ci la nekk ba ñu noppi koo teg bët mhm. moo tax kenn ci jàmbaar yi ko yaakaar di Serigne Babacar Jaxate Serigne Bay Jaxate amna qasida gu rafet bu mu defal Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul muy qasida go xamni arab lako ko def xasida ga mu nga doore ci aya faq fakun ya faqir al mali khadim sayyidi fakun ya faqir al mali khadim sayyidi fa khadimuhu yahwi jamia munahu ci bir dafa wax ni fa yakhdimu lil mahi ويعبد ربه وما زال في هزين من نراحو <laughs> ان باي جاخت نيا نعم. فونكسيون بي في سيغ توبا نيوي موي جامو يالا بروما اك لغييل الماحي كي فار بكار يانت فيخدم للماحي ويعبد ربه موي جامو يالا بروما فما زال في هزين مست دنج نياري مبيري منذ نراحو ديب بنكو غيسه با نوبي كو غيس في لا سيغ توبا نيكون bi mu tollee ci ay fukki atam ñi am wilaaya waxuma ñi ko amul nag ñi mus dara ci toq wilaaya nangu nañ ñi moom la yàlla jox jamono bokk na ci sëriñ Momar Kan Dingiraay bi sëñ bi amee fukki at la ko joxoñ ni innal quruna bila sunya azimatahum fi raxatayhi fa yanqaadoo ma an quuda haza la ahmadu bamba kaana waliduhu بحر العلوم نمير الماء مورودا سرين دينغرا هنا هنا ما نجي جيني جامانو يوب إن القرون قرن موي سيكل موي تيميريا جام أبي موي القرون مارام بولم سيكل في أم إن القرون بلا سنيا كلو أنت استثناء جيني نجي muni azimatuhum sen nosu sen nos ñu am sen nosu ruya, hmm. fi rahatayhi mu ci ñaari tenk loxo señ jox ci ah fayan qaadu man quuda ñom ñep dañu womatu par force ñu jox ko bop dootu ñu ko mëna bañ parce que ko jox mbir bu dag may laaj kumu doon nak hezala ahmadu bamba ki may wax moy cheikh ahmadu bamba kuy wéy juram nako kana ko hmm. kaana waaliduhu maam anta sali juram wax moy kan kaana waaliduhu bahral ulumi mo nekul geju xam-xam geju xam-xam hmm. namirul ma moo nekkoon borom ndox mu neex di ball ci xam-xam mawroo daa tey rootal ñépp ñu root ko koy wéy juróom nga dem njaasaan maam buukunte ni waxwal xadimu bila jahdin muarrifuhu bi zuhdi kana shaykh al badwi wal hadari mam maam buukunte wa huwa al khadim ko ne bëgg na cër bobu khadim rasulullah ki la ko yàlla jox wa huwa al khadim bila jehdin nak ci lu ànd ak benn contestation kenn du ko wet wal khadim bila amul ku koy contesté ñu xam ki mom moy khadim rasul bi zuhdihi ci dëttu aduna gi ko defal wuti boroma kana mujjina nek nekk babi wal hadari, sëriñu ña demon ak ñi teew ci kon ñim bokal nek jamono nangu nanu lool mu jug nag ci loolu nga wax muy lan jang ak jangale ak top wi juróom bu baxo di mamour Anta cheikh Mouhamadul Bachir Wahna Kitere ci téere bi sering nenu baaxal xadim bi mësuta wut dara ludul ndigalu baayam dem na ba ci taalifa mi wu njëkk a taalif ñi ko jàng ñëpp nu cheikh yi lañ ciy fekk doomu kon Mamor Anta monek moo nekkoon sëriñam mu nekk loolu rek ba keroog bi Mamor Anta Sali wàccee liggéey tafsir ma ndumbe maar sill jullee ko te ñu denc ko daje fa ñu sering sëriñ Tuubaa fas mu ni war day dox ni ñëpp keroog ca jataay bala wane ni maa moom jamono ndax la ko nuyu ca jataay booba ku ma mës a nuyu xaw ngaa saalit jaxaso buur buur daa neex di du ay caaxaan tey nun ñi ñépp ku ci président de la république woowoon dina dama lay jox benn 4-4 bu la yóbbu foo jëm sa service dinaa la jox passeport diplomatique réew moo bëgg tee dem da ngay dem directement. da ngay d' pour cent. da ngay d' pour cent. wallaahi dinaa la jox loo bëgg ubbi la samay buntu. dangay ngay daw te mën ngaa jeexal téere yi sax dafay daw fa da naan yàlla ñëw na ci man da naan yàlla ñëw na moom nag jamono jooju buur bi di Lat Joor booba wéy juróom wi nekkoon xaadi wàcc na liggéey li liñ ko proposé moo ëpp doole lii ñuy wax tey dañ lay def xaadi ngay àtteel buur ñu lay mayi tool di la mayi fas di la may gànjar di la may wurus lépp ñu nekk ci sa waaw lan la Cheikhul Khadim tontu kenn la ñu xam ni bokkut ak mbindeef wallaahi lan la tontu bu rafet ba te teggi dani tafsir ma ndumbe marsil yalla la yalla fay ngeen ki fay ta fegal la aw lor xamna naa ma yene rek yiw waye nak li ñuy wax pañatu àdduna dama soxla wu lu ndax man talal sama loxo wala jéggi sama jeego dem ci wunti wuur ngir luñ ma jox moo weddi yalla la yamale man duma la kuy jeexal borom aras mom lay sukkandiko suma ma problème musafara ko suma ma dara musafara ko suma ma aajo mu jox mako ko lay jaamu gërëmu lu dul xam ak diine ci lii laa nekk ñii ni dafa am problème mu xel te yanant bi déggoon na ko mhm. yàllaa ko laayal wa maa saahibukum bi majnun ah. ñii ni lii xanaa moom lu ko dikkal la ñaan ñu ne déedéet daf noo gën a ragal yàlla mhm. mu tàgg ca ñaari xasaa yi mhm. la ca sant benn ba mooy xaaloo shafiun li sarfi alhumus basari benn ba mooy xaaloo lier kan li abwaabi salaati nii tahus jawaaisa tourni kulla mahini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 kon xam na ni ki dul jeexal a mat a àndal. Mm-hmm. yàlla nan laay demee ci ñoo xam ni seen kër ga mooy rawdu seytaan. Mm-hmm. fa la jardin satan fa la nekk. Mm-hmm. nan laay demee ci ñoo xam ni dañoo lompañ ci seen bopp comme miskit nan laay joxe sama mbir koo xam ni dafay jeexal tañ koy day dunde ger man kat diine képp laa gërëm ak xam-xam man du ma ci ku dul yàlla sama borom. wallaahi ndax xam naa ne yàllaa yor njariñ yor lool. an nafo wa durru من الرحمن ليس, ليس من, البيدان من البيدان والسودان النفع والضر من الجبار ليس, ليس من الأحباب أه، والفجار آه. ليس من الأبرار والفجار, من الأبرار والفجار. النفع والضر من الوحاب ليس من الأعضاء والأحباب كون نجارين تي يالا لا نيك dem ci qasidi qul huwa allahu ahad wax ni man dhanna ghayra allahi fazaaka fii daari ni kaddin wa mhm. kon yàlla rek la doy la mhm. teg yenant bi fu ko kenn mës teg muy référence am bëggam yenant bi àgg na ci wax ni a neexoon man xaadimu rasul bu yenant bi naree teg ndëggu tànkam ci suuf suuf si mu koy teg sama lex bii aka neex mu dox diggante ndëggu dàllam ak suuf si mhm. loolu martaba la xadii jaaltahu turaaba naalihi يا ليته لحزني بفضله بوكت قدي وقاية في رجل المتبع عن شوكة وما يدعي أقربه